ala man ursila rahmatan lil alamin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu àq di leen bal àq di ñaan mawlaana tabaaraka wa mu boole ñu baal defal ñu jàmmi àdduna waaye defal ñu jàmmi àllaaxira ndax foofu mooy fi nga xam ne fa la ko ñépp soxlaa di ñëw nag di am ak yéen émission boo xam ne ñu ngi ko tuddee askar fas yéene ci jàngalante suñu wàllu diine buñ nee askar nag mooy tudd yàlla tudd yàlla ci biir ci biti ci kaw ci suuf ak ci côté bu ne lan mooy zikr du loo xamante ni ne nit moo ñu koy jox walla dañ koy jëli fenn walla dañ koy soxla tey bu subaa ñu bàyyi ko waaye dafa nekk loo xam ne rappel la di la jegeloo ki nga xamante ne moom mooy sa boroom tabaaraka wa taala amul heure boo xamante ne dañ koy def ndax heure bu la neex mën ngaa def li nga xamante ne moom mooy askar maanaam di tudd yàlla moo xam yore nga njàpp moo xam yore woo njàpp moo xam yow mii di jigéen setoo moo xam yow mi di góor da nga yore janaaba moo xam daal fum mu la munti nekk ba mu des bërëb yi nga xamante ne dafa sobewu waaye fileeg yaa ngi xam ne yaa ngi ci àdduna bi seytaane nekk koo xamante ne borom bi tabaaraka wa dafa wax ne inna seytaana lakum aduwun fattaxizuhu aduwa mu ne seytaane mooy ki nga xamante ne ne seen noon la jàppee leen ko noonu kon mu nekk koo xamante ne mu ngi fi di jege la saa su ne di la jax-jaxal wala di la fàttaloo ki nga xam ne moom mooy borom bi tabaraka wa bu ñu waxee zikr nag mooy rappel mooy fàttaliku mooy suvenir di fàttaliku lenn wala di fàttaliku kenn zikr nag mën nga ko def ci anam bu ne ndax boo jëlee borom bi tabaraka wa taala dafay wax ne inna fi xalqi samawati wal ard waxtilaafi leyli wan nahaar la aayaatin li ulil albaab alladina yadkuruuna allaha qiyaaman wa quudan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samawati wal ard rabbana ma xalaqta hada baatila subhaanaka faqina azaaba naar mu ne na fi xalqi samawaati wal ard mu ne nekk na ci li nga xam ne mooy bindu asamaan ak bindu suuf waxtilaafi leyli wan nahaar ak juwaarloo bi nga xam ne moom la guddi gi ak bëccëg bi juwaarloo mooy maanaam dugalante guddi gi ak bëccëg bi mi ngi koy ràppalee sax ci fi nga xamante ne moom mooy sóoratu yaasin di ko fa wax mu ne mu ne la aayaatin li ulil albaab mu ne ay kémtaan la ñeel ñi nga xamante ne dañu am xel suñu waxee xel nag nekkul koo xamante ne ne boroom xel bu gàtt la wala boroom xel boo xam ne ay xalaatam jëmeewu ko ci borom bi tabaaraka wa waaye ki mu wax mooy ki nga xam ne fu mu mënti tollu xaal bu mu mënti toll walla fu mu mënti nekk rekk mi ngi xalaat borom bi tabaraka wa taala muy guddi muy bëccëg muy noor muy nawet muy heure bu mu mënti nekk rek mi ngi xalaat borom bi tabaraka wa taala mu ne lan yàlla mu ne alladina yazkuruuna allaha qiyaaman wa quudan wa ala junubihim mu ne ñi nga xam ne dañuy fàttaliku yàlla suñu taxawee suñu tëddee suñu soonoo soonu mooy maanaam nga jël sa conc teg ko lal sa loxo tëdd ci mu ne même bu ñuy dox sax mu ne même bu ñu toogee ak ay nit sax seen xel mi ngi jëm ci borom bi tabaraka wa taala lépp loo xam ne ñu ngi koy xool moo xam mellentaan la moo xam ba ci tey jii sax micro bi nga xamante ne moom ngay waxee sax dafa am loo xamante ne daf lay jox borom bi tabaraka wa taala kon loolu mooy li nga xamante ne moom mooy fàttaliku borom bi tabaraka wa taala mu ne wa yatafakkaruuna fi xalqi samaawaati wal ard mu ne mu toog nag ñu toog sax nag di fàttaliku li nga xamante ne moom mooy bindu asamaan ak bindu suuf ci naka ndax euh, ba ñu bindee asamaan ba léegi nga koy xool ba nga juddoo ba léegi ngay xool asamaan mësoo gis mu xar mësoo gis peinture bi commencé xoosu mësoo cee gis lenn loo xamante ne faay la sooy jàng sortul mulki borom bi tabaaraka wa daf lay wax ne tourneel sa bët nga xool amul fenn foo xamante ne di nga fa gis faay li nga xamante ne tamit mooy suuf si suuf si nga xool ko mu tàllal nga ci dox borom bi tabaaraka wa taala di la fàttali ci surtu zalzala di la wax ne baada auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ida zulzilati l ardu zilzaalaha wa axrajat l ardu asqaalaha wa qaala al insaanu maa laha mu ne suuf si ak ay rëng-rëng maanaam genre tremblement de terre la boo xam ne bu ñëwee day ëpp tremblement de terre doo xam sax noo koy tuddee mu ne bu amee wa axrajatil ardu asqaalaha mu ne suuf génnee li nga xamante ne moom mooy meññatam mu ne wa qaalal insaanu maa doomu aadama di wax nag ne lii lan la mu ne ñooñu nag bu ñu toogee ñu ngi xalaat di ci kaw suuf ak biir suuf ak li nga xamante ne mooy keroog yowmal xiyaam di ci xalaat naan suuf si ni mu tàllaloo onkul ma ciy dóor samay dàll du onk ma ciy bay mu nangu ma ciy tëdd di ci lal sama matelas wala di ci teg sama lu ne nekk ci kawam di ci dund di ci jaamu yàlla man est-ce que yell na ci man yàlla defal ma faveur boobu yépp ma koy fàtte loolu bu fekkee ne yaa ngi ci rek du nekk loo xamante ne dinga ci fàtte borom bi tabaaraka wa taala beneen bi ñuy wax lan moo waral zikr santaane yàlla la boo xam ne euh, daf ñu ko defal pour ñu koy fàttaliku saa su ne ci ay aayaat yu bari yoo xam ne ci alquranul karim mi ngi ñu koy fàttali bi ci njëkk muy wax ci suratul baqara aaya 152 muy wax ne Eh, baada aouzu billahi min asheytaani rajim fazkuruni azkurukum washkuru lii wala takfuruun muy wax ne fàttaliku leen ma ba leen di fàttaliku donte yàlla du fàtte kenn waxin la waaye mu ne washkuru lii sant leen ma wala takfuruun te bu leen ma weddi sadaqallahul azim bari na ay ayaat yoo xam ne ñëw na ci ñuy fàttali di fàttaliku borom bi tabaraka wa taala moom ci boppam mu ñuy jox ñu koy fàttaliku xam naa incha allah ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon ci gën a xóotal ci li nga xamante ne moom mooy askar in uridu illa al islaaha ma stataat wa ma tawfiqi illa billah aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu